muy fakihatu tullaab aw jaamiul maraam bu maam seex sayidil xaaji malik radiallahu taala anhu ngeen di ko teewloo ci daaray sayidil malik si ci njàppandal ak seex mohammed njaay bu seex sëriñ mor kàddu gaa ngi bàyyikoo fii ci daara yi sëriñ Babacar Sy ngeen di ci ànd ak seen mbokkum daara alxaaji Malick Mbaye Bollé maam seydil xaaji Malick mi ngi ubbee téeréem basmala basmala moo di bismillahi rrahmani roy ci alqur'an waaye roy ci mboolem téere bu mës wàcce kaw asamaan la ubbi téere ba bopp téere ba moo di bismillahi rrahmani rrahim waaye jëfandikoo njàngalem sallallahu alayhi wa sallama gim ni woon lu waay di sos di ca sintu barke di ci séentu aw yiw di ci sintu njariñ waaye dooree ko bismillahi dana ca def barke dana ci def yiw dana ca def njariñ looy sintu aw yiw ak barke te dooree woo ko bismillahi rahmaani rahim yenent sallallahu alayhi wa bu ci yiw ame itam day manqué bu ca barke ame itam day manqué ba boo ca defoon bismillahi rahmaani barke ga cay am comme dindi ko yiw wu ni moos dootoo ko ca am maam dajeeg yi yëpp yéene téeréem bi yiw ak barke ak njariñ mu jël bismillahi rahmaani rahim ay waxam dañuy wax ni téeméeri téere ak ñeenti téere yi mooy téere yi mës wàcce kaw asamaan yàlla jox ko ay gaayam ni leen leeralal leen ko seen gaay yi muy ay téere yu ëmb fu jaam bi di jaar ba juboo ak boroomam ci ay digle ci ay tere ci ay dige ci ay tëkku waaye ci ay atte subhanahu wa jël ca juróom fukk jox yonent yàlla siis doom la woon ci sunu maam aadam jël fanweer jox yonent yàlla idris juróom ñett fukk a ngoog mu jël fukk jox yonent yàlla ibrahim jël fukk jox yonent yàlla Muusa téeméer a ngoog mu jëlaat tawreet jox Muusa jël injil jox Isa jël zaboor jox Daawuda jël alqur'aan jox ko sallallahu alayhi wa sallam téere yi yëpp lanu ubbee moo di bismillahi rahmaani rahim loolu la maam seex sayyidil xaaji malik tànqu ca barke ba ngir yéene nu ko nun njaboot ubbee téeréem bismillahi rahmaani rahim bu ñu la koy jegeel ak déggam dañu naan la bismillahi ci tudd turu buur bu ñuy wax allah tuddu turam lees di doore ay wax ak i jëf ab jullit lépp lu muy def lépp lu muy wax da koo war a doore tudd fa turu yàlla subhanahu wa taala tax mag ñi naan bismillahi ci tudd turu buur bu ñuy wax allah lay tambale samay wax ak samay jëf arrahman buur bi feese dell ak yërmande ñi ngi ko tëgg faalaan jàngkati sorfu yi xam ni lisim ju ñu tëgg faalaan xaaliban dafa tegtale lil kasra buur la bu feese dell dell dell ak yërmande ndeysaan waaye arrahim buur la bu sax dàkk ci yërmande ñu ko tëgg moom itam fail dafay tegtale xaaliban li subuut waaw mu daldi cay teg wa sallallahu taala yàlla na buur yàlla dolli xéewal xéewal gii nag koy ñaanal ala sayyidina ci sunu sang ba wa mawlaana sunu kilifa ga muhammadin yonent yàlla muhammad danaa la dikkal ci lanay salaatoog lanay sayid wa ala alihi na ko xëppaale na ko dolliwaale waa këram ña danaa la indil ñooy ñan wa sahbihi danaa la dolliwaaleel ci xéewal ya ñama koy ñaanal ay saxaabaam ñanay saxaaba wasallama te dolli ko ak muccal ci lan nga koy muccal danaa ci ñëw mu daldi cey teg nag gannaaw bismillahi irrahmaani irrahimi salaatul fatixi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 wa miqdaarihi alazim danaa la ñëwal cik wolofalam sunu kemkattan baatub allahumma jàngkati naxwu yaa ngee werante ci ak tëggam fu mu jaar ba nekk allahumma lanay cosaanu baat bi mbooleem waa basra ñoom la ñu tuddee basriyin mazhabul basriyin moo am ci naxwu ak kuufi mazhabul kuufiyin mazhabul basriyin nag Sibawayhi Xaliil an-Naxawi bokk na nañu ànd ci ni aslub baatub allahumma mooy yaa allahu yaa allahu moo fa nekkoon ba ñu dindee yaaga lu fay des allahu danoo changé yaaga def ko muy miim guñu sadda te xam nga miim guñu sadda ñaari miim la ñu remplacer ko ñaari araf yi nga xani ñu composé yaun ya ak alifun ñu jël allahu daldi ci ses mi mayni ni wala ben mi musaddada nga am allahumma li moy waxu wa basra si bo way ci la and khalil ci la and ñëw na ci alxuraan ci juróomi bërëb fa mu jëkk a ñëw ci alqur'aan saaru aali imraan la qulillahumma malikal mulki balaa ya ja jeex ñëw na ci suuratul maida ba buur naan allahumma rabbana anzil alayna maidatan min assama balaa ya ja jeex na ci saaru lanfaal وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة نيونا تسار يونس ببورنان دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم بالله جيخ جروم ميل باي نيو جيمو نيو تسار زمر ببورنان قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهاده anta taxkumu bayna cibaadika fii ma kaanu fiihi yaxtalifuun li muy firi mooy ak woola gu ñuy woo subhaanahu wa waaye woo ko ci anam wu sell buur boo fonk lool kilifa goo wekk lool di ko woo bañ koo sàllalu bañ koo woowe comme kuy woo sa moroom woowin woo wii nga koy woo ndax ni danga ko fonk looloy baatub allahumma gi ñuy woo subhaanahu wa taala loolaay la gën lëng ci waxe ulama annaxawiyun yi ndax bu ñu demee ci mazhabu ahlul kuufa ñoom nee nanu allahumma asloom du noonu ngeen ko jàppee yen waa basrade de li fi nekkoon cosaan moo di yaa allahu ummana bi xayr yaa allahu ummana bi xayr loolu li mooy yow yàlla jublu noog aw yiw waaw loo am ciw yiw daal ëmb ko rekk jublu nu ba ñu nee nag yaa allahu ummana bi xayr ñu ni leen loolu nan ngeen def ba génne ci yaa allahu ummana bi xayr nan ngeen def ba génne ca allahumma ñu ni bi ñaari baat yi sësaloo te mooy yaa allahu ummana danoo xasaf hamza gi allahu ummana ugoo gi dañ ko dindi ba ko dindee moom hamza gi dammaam goo gi mu amoon moo ñëw ci haun gi ci allahu moo fi indi allahumma loolu waa kuufa ñoo ko wax am na beneen naxawi bu ñuy wax az-Zujjaaj nee na loolu ëpp naa wax baatub allahu damaam googu ñu ko xame nga xam buy nidaa di mufrat di alam des ko koy jox moom dammaam jooju nga naan moom dammaam ji li ko fi indi mooy damma keneen la ne loolu ak ndëngte la loolu ak jalgati la gu ñu def ci ismullahi jooji di kalima allah ne wax ji waa kuufa wax wérul waaye nag beneen boroom xam-xam bu ñuy wax ibnu atiya moom itam dib naxawi bu mag nee naa zujaaj nag danga xir rek waaye lii ngay wax moom wax dëgg taxawul waaw waaye coow laa nga fa ne gàdd comme ning ko xamee ci mbooleem masaa'ili naxwu yi bu kii jaaree nii kii jaar waaye daal li ci gën a wér gën ca lëng mooy loola ca waa Basra wax te ma jiitalal la ko ci biir wax ji loolu nee nañu mooy maanaam donte am na ñu ni dëgg la ku ñu fonk ku ñuy màggal la woo waaye nag euh, li firi du màggal ko limuy muy firi du woo ko waaye limuy muy firi mooy ñaan ko dafa ame rekk maanaam yàlla nangul ma waaye wax jooji li ci gëna a wér ma nga ca biir wax jee ndax ñaan ko ak woo ko benn bee ndax subhanahu wa taala ki koy woo bareyaana ñaan ko la koy doyee moom danga koy ñaan ngir mu may la ba nga ñaan ko ngir mu xettali la waaw ku la ëppale am ci yow sañ-sañ tiim la ak nga ne ci ronam amoo xamoo manoo boo koy woo loo koy doye lu dul ñaan ko kon ñi ni ya yaa allahu moo fa nekkoon ñu dindi yaaga mu des allahu ñu dolli ñaari miim ca kanam remplacer ñaari araf yi ñu fi xasafe mu mujj di allah comme nag allahu yaa allahu ismun mufrad la ismun mufrad bu dee alam buñ ci dugalee yaa un nidaa koy damm ca lañ koy binaal looloo fi indi allahu ñu jël allahu boole koog mii may ni muy allahumma mu ni salli yàlla na nga dolli xéewal ala sayyidina ci sunu sang bi muhammadin yonent yàlla muhammad mi nga xam ni mooy aji ubbi lima lépp loo xani uxlik xa xomboos na ko maanaam tëjoon nanu ko ci aw yiw ci barke ci leer lu tëji woon lépp sallallahu alayhi wa sallam moom ki ko ubbi ci moom la yàlla jaarale ak ubbeem waaye sang boobii may wax wal xaatimi mooy ki mottali lima lépp lool sabaqa jiitu woon ak ndortelam ndorteelam diriku woon jëm ci nun moo ko yóotu ba nu jot ci mu jox nu ko sang boobi naasiril xaqi muy dimbilee dëgg dil xaqi ak dëgg walhadi muy gindee ilaa siraatika jëme ci sa yoon wi almustaqimi wa ni coow ba ci sa ngërëm kooku dolli ko salaatu wa alihi dolli waale ko wa këram ña waaye nga def kook xaqa qadrihi dëggi dëggi darajaam wa miqdaarihi ak tolluwaayam al azim bay aji mag amin ya rabbal alamin lii mooy salaatul fatih bu nu koy jàng ak julli la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama goo xani te subhanahu wa taala la bàyyi ko yonent bi tëgg ko malaaka tëgg ko jinne tëgg ko nit tëgg ko tëgg moo di subhanahu wa taala te loolu ak yaatale ma nga ca biir téere ba dañ ca àggi insha allahu taala mam ni alhamdu ak cant lillahi aji saxla ñeel buur yàlla alladi buur la boo xani afaada muy bëbbal muy xëpp ala awliyaa ihi ci kaw gaayam buxuural anwaar géeji leeram yi wa jacalahum mu def leen ñoom gaayam yi maadinal macaarifi mbelli xam ku bëgg a xam ci moom aslëf ci gaayam yoo yi ngay jaar wal asraar mu def leen itam mbelli sëkkëreem yi mu nëbb ñu bare xamal ko ñu néew ñu néew ñoo ñii mu koy xamal mooy gaayam yooyi buur boobi alhamdulillahi ak cant moom la ñeel isan kooku ñu tuddee wëliyu ñooñu ñu tuddee awliyaa u ñooy ñi yàlla jël taf ci boppam du seen njàmbaar du seen takku du seen du seen du seen du seen dara danoo def lanu man ci wàllu jaamu yàlla subhanahu wa yàlla nangul leen yamu ca faye leen jël leen taf ci boppam am na ci seen biir ñooñ bi ñuy doon ay wëli yu juddooguñ kon ñii defaguñ dara am ca ñooñ xam nañ ni ñoom ak wilaaya te mooy nekk wëli yu dalee na dab dañoo judd di góorgóorlu ci wàllu jaamu yàlla ba ak wilaaya dab leen am ci ñooñ sax ak wilaaya dab na leen waaye yëguñ ko am ci ñooñ yëg nañ ko mais nit ñi yëguñ ko am ci ñooñ nit ñi yëg nañ seenu ko wilaaya waaye ñoom yëguñ ko ñi ngi bare lool ay façon subhaanahu wa taala moo sama gaañoo ñi maa leen jël taf ci sama bopp ñuy samay gaay waliyu mi ngi firi aji méngoo ji lu méngoo subhaanahu wa taala subhaanahu wa taala itam méngoo ko nga xam ni kii ko laal rek yàlla nga amal affaire boo ko defee yàlla nga def waaye boo ko defalee yàlla nga defal kii muy wëli seeni façon limu lool Sidil Xaaji Malik comme lii muy bëgg a jàngale ci téere bii li ci ëpp ñii la concerné ak seeni njaboot mu daldi def fii xaat ak junju pour nga xam ni ñii may bëgg a wax yàlla leen baddil lam leen baddil xëpp leen am ci ñoñ góor góorgóorlu ba yàlla xëpp leen am ci ñooñ ba yàlla di xëpp juddaguñ waaye xamaa leel ni ku leen def yàlla nga def ku leen defal yàlla nga defal subhanahu wa mu ni alhamdulillahi ak cant ñeel buur yàlla alladi buur la boo xam ni afaada mu xëpp ala awliyaihi ci kaw gaayam yi buxuural anwaar géeji leer wa jaalahum mu def leen maadinal maarif ay mbelli xam looy xam ci yàlla ci ñi nga koy jaare wal asraar waaye mu def leen itam ay mbelli sekrem lu yàlla di dul ñépp ñëpp ñii la koy mu ni assaaqi buur bi nga xam ni mooy nàndale min baxrihin namiiri ci géejëm guy tem-temi ga géej gu neex mooy albaxar an namir mooy nandale ci géejëm googi neex lool bi fadlihi ci ngëneelam moom yàlla mbaa xama de du kenn danga apte pour ni dama cay naan fors kenn defalu ko yàlla mais moom moo am fadliyatu moo am ngëneel ak mbaax gu toll ne géejëm ga ku ca naan rek di waayam mu am mbaax gu toll ne di tànq ci géej ga di màndal ña ko neex yàlla nañ ca nàndal mam ni mooy màndal min baxrihi lennat ci géejëm ga kenn mënu ko naan lépp danga nga naan rek an namiir gay aji neex bay temtemi mu def koog bi fadlihi ak ngënee lëm waaye du luñ yayoo nun kum cay nàndal aljalil ponkalum waliyu bu tol ne aw nag pour nga dégg wal xaqiira ak waliyu tuuti wuy tol ni fel ñoom ñëpp yàllaa leen mandal ñoom ñëpp ay gaayam lañu pour nga dégg nag moo tax ma tudd fi aw nag ak aw fel pour nga xam ni am na ci waliyu yoo xam ni seen wilaayaa ngi tol ne aw nag waaye am ci waliyu yoo xam ni seen wilaayaa ngi tol ne aw fel la yàlla may boroom wilaaya gee di tol ni aw nag yàlla moomu may ko moo may boroom wilaaya gii di tolloog aw fel xoolal fa yetta jërë u mu daldi am fit wa in daaw fa doonte faible na moom ak wilaayam te maa ngi ci jublu wali wow am wilaaya gu tol ne fel li ko yàlla màndal yëg li ko yàlla màndal la gis donte wilaayaa ngi ci kanamam wutal ne wu aw nag pour nga dégg mafduulu walla al mafduulu dana sañ al mafduulu kooku ñu defal ngëneel nga xam ne du njàmbaaram ngëneel dong ca yàlla moo may moo ko may wilaaye gii mu am donte lu tuuti la ci am bay tolloo ko wufel xolal moom yetta jërra u almafdulu mooy la ja lanay maful ma lan la ñeme mulaaqaatal fadili mbëkkanteeg ponkalum wëli yu wee am ci wilaaya wu ne aw nag anna biil bay aji tedd seet tëdd tëdd tëdd li lu bëgg wax fii mooy yàlla noonu muy mayee boroom wilaaya gi tol ni aw nag noonu la mayee boroom wilaaya gi tol ni aw fel waaye xooleel kenn ku ci nekk la yàlla may nga yëg la yàlla may ngay doxe moom ngay waxe moo tax ngay gis ponkalum wëliyu wax loo xam ni wëliyu mësu ko wax gis wëliyu woo xam ni mi ngi ci ronam moom itam wax loo xam ni wëliyuwee ko mag ëpp ko cër waaye mësu ko wax fa yatajarra'ul mafdulu mulaqatal fadili nabili wa in fa xam nga aw fel bu ñëmee tëb dal ci kaw aw nag daa yëg boppam waaye gusul kudul boppam loolu yàlla def ci moom la yëg téere ngi bii bunte gi ci téere bi boo xam ni li muy jàngale mooy ixtilaaful machaaribi wal adwaaqi aw awliya yi li tax ñuy wuute lekk la koy sabab mooy fa leen yàlla nàndale muy wuute kii la mu góox ba tax mu yëg lii muy wax ku ca guuxul lii muy wax xamoo ko moom itam xamul keneen gisul keneen ku dul ku guux lii mu guux comme lii nag moom képp ku guux moom képpay wax lool lii ci moom les kuy mës di dégg léeg ci wëli woo xam ne la muy wax wëli ngi ci kanamam di wax lu wuuteeg loola na muy gisee wëli yoo ngi ci kanamam wum bokkalul gis-gis booba te loolu mi ngi fis lool mi ngi yaatu lool ci biir saxaabatul kiraam yi nga xam ni gannaaw dunduk sallallahu alayhi wa sallam xeet wi ñoo ci gën tedd Aboubacar jaar nii Sidina Omar jaar nii Aboubacar jaar nii Sittuna Fatima jaar nii soxna Aïsa jaar ne sayidina aliin jaar ne totalement lu ko waral du àddina de lu yàllaa la moo tax danu naan la yow ma àggul fa ñu àgg ba wuute bu dugg ci seen diggante naan kii moo juum ak juum ndax kii li mu mos bay wax ku ca mosul xamoo li muy wax te moom lii képp la xam lii képp la gis ndax lii képp la mos kee mu wuuteel moom it noonu la mel ca la mu xam la mu mos la mu gis loolu la maam Seydi Haj Malik jublu ci fa yette jërra mu daldi di bajantu al mafdulu kooku ñu defal ngëneel te maa ngi ci jublu al waliyu al xaqiir sañ na mbëkkanteeg mulaqaatal fadili mbëkkanteeg wali wu mag annabil wu tedd mbokk yi nañu teg fii sunu baaraam ba dellu siwaat insha allahu taala ci sunu ñaareelu jotaay wasalaamu aleykum wa rahmatullahi